bi ñëw nañ euh, jàppal nañ ba yëkkati nañ oto bi moment bi euh, léegi nag li ci des ñu xam bilan provisoire bi ñaata la ci kanam ngeen ñu xaar euh, parce que le gouverneur de Kaffrine agsi léegi ànd ak le sous de Ida Mouride ngi fi le maire de Saly Escale mi ngi sur ñoom ñëpp ñu ngi fi xam naa dañu jëm ut seen réaction léegi ñi ma xam ak médecin chef bi wala waa ñu wax ñi bilan bi lan nag ñaata la parce que bu ñu waxoon neuf je crois que jot na évaluer parce que li ñu kon donc daal ci gis nañ gars yi nekk hôpital ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di ñaan ñëpp nañ dem hôpital pour may gi deret jàppale leen mais bis moom ni mu renversé woon ak grippe yi xam ne doon jaar fi dem daaka jàppale na waa Koungheul yi ba gars yi yëkkati ko comme ça jàmm am na si côté boobu noonu bis bi jóg na lépp lu fay nit nekkoon ci biir génn nañ ko mais bëri nañu si ñàkk seen bakkan ñu toppaleen ci kanam tuuti rek pour xam lan la mo lan ñaata nit ñoo fi ñàkk seen bakkan ak blessé yi tout ça dañ ko am ak docteur El Hadji mhm. waaye man kii eh, eh, eh, Sicap Mbao ci camp bi ci wetu camp bi mhm. ci station bi foofu la bus yi ñëw bi ñu ñëwee fekke mm, woote nañu pour ñu dagal ñu billet ah léegi ñu ñëw man ma ñëw yéeg ci bus bii nii ñu ne déedéet yow doo doon ci bii fekke toog naa si gannaaw chauffeur bi chauffeur bi papam ñoo ñoo jànganoo alxuraan. mu ne ma kaay toog fii si sama wet professeur bi ñëw ne doo fi yéeg yow. ci beneen bi say bagage ñu ci oto bi ngi nii. daggoon naa bi ci bii. ah, ah, ah naa billet ci bii. bi ma daggee billet ci bii. ñu ne ma yow ci bële ngay ñun ma ne sama bagage ñu ne après da nga koy jot fale. léegi am ngay mbokk ci bis am naa fi lu mu treize xaw ma huit personnes xaw ma dix personnes. xam ne ñàkk na seen bakkan. ah non am na ñi ma gis. am naa gis naa benn mère bi ak euh, doom sama garam bi ak euh, sama benn rak. Mhm. ñooñu am na ki gaañu ñoom dem nañu hôpital. Mhm. waaye am naa ñi ma gisul. Eh, am na kenn ki ki xaw a mag tuuti te mu am kokot nii te eh, moom ak jabaram ak doomam ak beneen xale góor ñun gisaguma leen loolu moo tax ma wàcc fi ma ne il faut ma xool ah. léegi damay dem hôpital bi ma xool bu ñu demee foofu bu ñu ma wonee comme que xam naa leen danaa leen mën a xam ne waaw gannaaw gis bi nga bokk nga toppoon waaw ci laa topp